waxtu di waxtu xibaar yi ci seen euh, première chaîne de télévision privée gannaaw euh, bañ leen euh, nuyoo ñu doore ko nag ak waa parti démocratique sénégalais ñu wax ni dinañu ànd ak seen ay morom ci kàddu nag kii di Pape Samba Mboup wutali fële di palais de la république Pape Samba Mboup di wax ni nag lii di conférence de presse yi doy na jot na dañu jóg xeer ñu ko woowee président Macky Sall ñoom ñëpp nag ci kaso bi la leen jëmee ñu déglu ay euh, kàddoom moom ak maître Amadou sàll ci micro Moussa Sall mille deux mille ba léegi dafa am loo xam moo ko waxal boppam ma ngi ko waxee États-Unis Amérique ñëpp dégg ko nee na moom la làmmiñam la suñuy nopp jour yi wax ko mu ne amel na dans PDS. ndax dafa am luñ ko def loo xam ne bi fas na yéene fileek yàlla mi ngi koy may bakkan muy noyyi mu xeex ak PDS wane ko ne loolu ñu ko def day fayu interdiction bi bekkañ au Burkina Faso au Burkina Faso hein ils sont pas plus forts que nous mais quand ils ont voulu se défaire du régime ils l'ont fait nous nous avons les leviers qu'il faut mais toi, fii ku nekk na manifester ça c'est quoi ah, le là, c'est des poltrons ces gens-là il faut qu'on se se batte ils vont aller en prison Ils vont les détruire, déturmaquer un à un et puisqu'ils cherchent à nous détruire qu'on le détruise et on a les moyens on a le peuple avec nous qu'on descende dans la rue qu'on marche sur le palais c'est moi qui le dis et ah, j'assume waa APR tontu leen ca wet ga kii di yi Niang ak euh, Youssou Touré di ñoom ñooy taxaw tem dox ci euh, jàmmi réew mi ñu wax ni waa FPDR bu ñu bëggee amal la doxu ñaxtu wutuñ jàmm waaye fii lañ leen di fekk dañ ciy ànd ak reportage yu Khadija Sy. qu'il puisse pas avoir d'intervention pour dire que non dëkk bi jàmm la bëgg ku bëgg jàmm léegi nga koy dox. kaddu gi leer ñoom ñëpp taxawando pare ngir mëna jamarlo ko ñi nga xamante ne wax ni dinañ yak réew mi wa APR ne duñu daw te duñu puus te ragalu ñu xex ragalu ñu jamarlo ñi wax wa PDS ak seeni ñooñ ne nañu réglé ndax bu fekkante ne dañoo bëgg yëngal réew mi dinañ leen fi fekk mambay ak Youssou Touré taxaw ngir dankafu ñi nga ñoo bokké ci PDS ñu leen ni xam ne ni ñoom pare nañu bis bu ñu bëggee yàq réew mi dinañ leen fa fekk. nguur gi moo ngàlloo sasu aar bépp sénégalais ba ci ñoom aar ko fexe mu nekk ci jàmm ak alalam ñu ñoŋal ko nguur gi dina jël taxawaay gu mat sëkk. ñi ci jot jàpp yoon dina dal seen kaw cee yërmande mënu cee am parce que ku bëgg a yàq askan bi yoon yàq la. ñoom nag nee nañ yoon nangu yoon bañ a nangu dañ koy def luñ ci góobe nañ ko gar ma waxaat ñi nga xam ni bu nit ñi jaaxlee ñoom heure bu ñu jaaxlee ñoom la ñuy dem seeti kuy seen mbokk na wax ak ñoom parce que après kenn du ko seet ku bëgg a taal réew mi ñun ngay jaamaar lool ragaluñu tiituñu mënuñu ñoo tiital mënuñu ñoo xon ñoo ñan la ca mën nañoo xeex tamit ndax dañoo xeex ba egsi fi ñu egsi nii. ñu gis ni ñaari mbir ñoo tax ñuy nar a amal ay manifestation bokk na ci fexe ba Karim Wade génn ci prison bi waaye it fexe ba yëngal réew mi Mame Mbaye di xamle ni procès le mu neex mu nakari dina dem ba mu jeex. yoon nag bu demee ba amul ci réew day taal lépp ku yaakaar ni que mën ngaa génn ci loxo yoon yaa ngi nax sa bopp waaye tamit ku yaakaar ni que mën nga jël ay doomu jàmburu di leen manipuler pour ñuy jéem a taal ay bus comme li fi amoon fan yii fekk ñoo xam ne dañuy ñaxtu pour ñu jël leen ci biir fonction yi publique ñu dem jàngale ji nga ñëw rax leen fekk préparé nga ak say nit fële ca seen siège wax def say affaire commando yooyu ñëw fekk benn kaar dugg ci biir nit ñi taal kaar bi ba ñu jàpp la ba nga ba ñoom nga wax fi ngeen jaar ci loolu lépp ngir bëggoon ñu jiiñ ko manifestant wu Pastef yi yàlla weer leen tey kon umpul kenn ni que ñii seen mbébét mooy taal réew. waa front patriotique pour la défense de la république taxaw temm ne dañuy amal ab marche de protestation mercredi nar a amal it ab meeting vendredi ca place de l'Obélisque samedi nag ñu nar a def ab sitting foofu ca place de l'Obélisque ànd ceek Abdoulaye Wade Mame Mbaye Niang ak ñi mu àndal jàpp ni lii yëpp dañ koo def ngir mën a yëngal réew mi waaye nag ñoom parewuñu pour bàyyi leen ci ndax fu ñu jógee pour yëngal réew mi dinañ leen fi fekk. Khadija sous brigade départementale bu Ndakaaru nala la gën a euh, yokk lii di ñaax gi ci feebar bi di Ebola gannaaw ba ubbiwaat nañ euh, frontières yi atum 2015 bi it ñu nar ci indi lu bees ci wàllum set kii di major Alla ji di njiit li xamle ko ci ab ndajeem ñu profito yi ñu profito si tamit def seen euh, bilan dañ ci ànd ak reportage bu Badara Diop sous brigade d'hygiène du département de Dakar, il y a un terrain de sensibilisation. Il y a un contrôle de a frontière du Sénégal et Guinée-Conakry. Une visite de est de 27 000 cœurs. une visite est de 17 000. Donc, on dépasse l'objectif. Donc, formation sanitaire, visite de l'eau pour 304, d'arrêt école yi dañ leen visité. ci atum 2014 ñetti téeméeri opération daal di ñuy koy amal ci terrain bi rawatina fi nga xamante ni moo di département bu Dakar liñ ci jublu nag moom moo di xeex yenn jàngoro yi ñuy duppee maladie vectorielle lu toll ci ñaar téeméeri junne communication daal di ñu koy amal ci gox yeeg goxaan yi fukki nit daal di nañ leen di arrêté ci li nga xamante ni la ñuy wooyee délit d'hygiène ak ay amaan yu ñu xayma ci fanweer ci million mu di bilan bi nga xamante ni daanaka am na solo lool. xam nga ne li ñuy wax hygiène prévention moy jéem gatalu dafa nek lo xamné lu am solo la ci walu lepp lo xamné nit da ko wara a ci bopam ndax bu set amulé feebar am. ci atum 2015 bi nak major alangom ak ñima andal fasiyene gëna baral li nga xamanteni mom modi xex bi ak ñaari plan d'action yi nga xamanteni mom moom lañ fas yéene tëral. bi moy day jëm ci voie publique ak kër yi pour que présent agent yi gën a ci kër yi dañuy dajale agent yépp ci benn micro ci benn quartier. ñu daje fa dugg ci kër yi dugg ci mbedd mi pour cet gi ñu gën ko yokk bu ko defee dinañ am plan boobu mel noonu ci wàllu ndox mi loolu ñu fagaru ak ci wàllu aussi ñam yi. yi lay jéego yëpp su brigade d'hygiène bu département bu Dakar liñ ci jublu moom moo di gën a bàyyi xel li nga xamante ni dafa am solo lool maanaam la santé de l'environnement ak lépp loo xamante ni dafa ñeel wàllu cet ci biir département bu Dakar. Madame Diop ñi ànd ak euh, laago di sàkku ñu jël leen ci fonction publique ñu jóge nag ci fukk ak ñent euh, gox yu Sénégal dajaloo fele ci Bambey ngir ap euh, njàng mu leen fay jangal ñu bëgg it ku leen financer ci seeni ay projet dañ ci and ak reportage yu Pape Sayar Mbaye centre d'orientation bi ñu jagleel way lago yi ci Bambey ñu fay yëngoo di amal ay projet yu mucc ayib waaye génn dëkk gu nekk seen biir tànk ba tere leen a dox di ñàkk ay financement sama problème mooy surtout partenaires yi nañ ñëw mooy ñëw jàppale ñu parce que état bi mënul defal yépp et les partenaires sont là pour accompagner les structures pour gunge ñu gunge état ci politique à la base fu ñu toll nii am nañu ay projet nga xam ne defal nañ ko yëpp ñu ngi xaar partenaire mooy projet fi euh, affaire jën projet euh, affaire meew production laitière production des des des des des des œufs de consommation mooy nem production euh, maraîchage loolu yëpp ay projet nga xam ne bu amee financement rek.

gisuñu loolu seen bopp parce que handicapés yi am nañu ay BFM am nañu ay formation mais duñ leen do 15 pour warta yem ci ben parti rek nañ ko tass président bi idéem c'est bon Macky Sall bi mu ñëwee batay wax dëgg yalla ni muy doxalee ak way laago yi il faut être euh, très très très il faut ne pas être reconnaissant pour do mën gëm loolu waye bu déné nit nga di nga xam ne Macky Sall wax dëgg yalla fi mu fekkoon affaire yi mi ngi koy pousse ndaw la ni ñun ñu ngi koy gërëm di ko sant suñu président réew la ñu ngi koy ñaan dañ koy ñaan li mu nekk na ko continuer ngir yàlla ak yonent bi nañu dimbale dugal ñu fonction publique soxla nañ. ñoom way laago yi naan jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel terewul ñuy yëkkati seen i kàddu di rafetlu loolu taxawaay bi nguur gi taxawu na leen ko ñoom way laago yi ci seen lu tàggee bi ñu doon amal ñuy jébbaleen ay lijaasa waaye tam ab limu koppar bu dinañ ci mën a wéyal li ñu fi jot a jàng. Saer nguur gi ak euh, syndicaliste yi mu mel ni jibooguñ ci loi boobu nga xam ne dafa nar a indi soppite ci université yi ni ki démb euh, waa SAES e nag tàmbali seen ñaareelu plan d'action jàng amul dañoo teel a dakkal euh, njàng mi ci université yi dañ ci ànd ak Badara Diop Sidi Ababakar Ndiaye ak ñoñom taxaw tem ñoom ñu benn yoon le loi cadre dal di jall té né nañu dinañ xar seen tank tubé ngir du mësa jall mukk manam dañuy confirmer rejet bi nga xam dañ ko defoon ci loi yi moy loi cadre mom déjà dañ ko bindat sax danaka ci benen wet ba manam ci ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ñu ngi jéem defal xel yi directeur de l'enseignement supérieur di ñaax ñi nga xamanteni ñoo di syndicaliste ñu and ki dal daal dañu gis ne aduna bi euh, université yi fi gën mooy yi nga xam ne ñu ubbeeku ci seen askan léegi nan nan lañuy eggee foofu ñu jëm loolu mën nañ toog waxtaan ak ceeg euh, suñu suñu naat suñu xarit yi su suñu syndicat yeeg. féewaloo bi ca dëgg-dëgg li ko indi ci diggante SAES ak ministère bi moom moo di adoption loi cadre ca njëlbeen nag li ñuy wooyee mouture bu njëkk ba daal dinañu koy yónnee fukki fan ak ñaar ci weeru avril ci atum 2011 ki nga xamante ni moo ko defoon nag di ministre bi yore woon lépp lu jëm ci njàng mu kawe mi ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre ci atum 2011 bi le document daal dinañu koy xaati bind ko ci gis-gisu ki nga xamante ni moom moo di directeur de l'enseignement supérieur. comme pouvoir yi nga xamné mom le conseil d'administration am bokk na ci mu mën wax wala saytu valider décision yi académique ay ba ci ay évaluation te ñoom daanaka bokkuñu xamuñu sax université xamuñu mbir question universitaire nu nu mel. ci diggante sayes ak ministre de l'enseignement supérieur danaka kenn xamul lu sa morom di wax budé sax ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci ministère ñu ngi dem dikkaat ci solo bi nga xamante ni bile loi dal di lu koy am. soo demee ci article 4 ci loi bi dafa ne lu jëm ci liberté académique loolu loi bi daf koy garantir loi cadre bi nga xamante ni dafa waroon a indi ay coppite yu yees ci li nga xamante ni moo di doxalinu université yi daanaka pucc xoo bu mag la daal di dugal fii nga xamante ni moom moo ci daara yi kawe yi SAES e banque bu baax a baax sañ-sañ ñu ko jox ngir mu mën a grève ca ministère de l' enseignement supérieur li ñu bëgg tey ji moo di daal di xalaat bu baax a baax li nga xamante ni moo di dignité de la république te ñu siy gën a ñàkk tey ji moom moo di étudiants yi nga xamante ni bu weesoo grève yi nga xamante ni moom la ñu dëkkee loi cadre bi ci boppam dina leen indil yeneen i tolof tolof. Badara Diop euh, ci euh, loi boobu kii di Yankoba Seydi di wax ni àndu si te ci lakk ko la jëm donte assemblée nationale euh, voté na ko ba pare ñu déglu ay kàddoom. mooy si li ñu war a def dañu ne le 2 février muy le premier lundi du mois ba nga xamee ne président de la république pare na def levé des couleurs ñun dañuy def dañu dem rectorat ci université yépp rectorat yëpp dañuy dem yóbbu ñaari loi yi ñu lakk leen bu ñu leen lakkee ba noppi doomu taal yi benn partie bi dañ koy dañ koy disperser euh, ci euh, devanture bibliothèque bi nga xam ne fa la ñëpp di daje beneen partie bi nag dañ koy envoyer président de la république ngir mu xam loolu la ñu def. CAN 2015 euh, yi kii di maître euh, El Hadji wax si di wax ni fédération bi ci boppam moo war a tekki nomba tànkam muy wax ni xamul dara ay amateur lañ ñu déglu ay kàddoom ci micro Hawa Konaté fédération ñoogaan du dem duñu mës dem bu ñu dem duñu dem duñu dem te kenn du dem suñu booy yi dañoo war a dem de mais boo àndee yow niveau bi mënul benn yow mënoo am ay ay ngand yoo xam ne dans les plus grand club du monde la ñuy joué yow nga am fédération kon ay nawetaan a ko géré ak làmb ji waa làmb ji ak waa nawetaan yi ñoo moom ñoo moom fédération bi waaw fu ñu jëm ñun duñu indi ay ponkal yoo xam ne def seen preuve bu yàgg ci football xam naka la nekk ay kilifa yu am autorité ci football comme Souris mais dafay neex ay Youssou Ndiaye ñooñu ñooñu bu ñu gérer da ngay sentir ni kilifa moo yore football bi comme autorité moo yore football bi loolu lañu manqué ba booy seen bopp sax duñ ragal autorité yooyu. mu doon ay kàddu maître El Hadji gannaaw euh, kàddoom yooyu dañuy dem ci li gën a fës ci yenekaay yi. njëkkee ko ak euh, yéenekaay bii di laas moom nag euh, mu xëy euh, wax ci nguur gi ak opposition bi di wax ni nag guerre totale moo si am Pape Samba Mboup di wax ni nañu wut li ji palais de la République Mame Mbaye Niang APR ko di ko wax ni amuñu lu ñuy tiit ñu leen di xaar la tribune tamit feussel Pap Samba mu yëkëti ay cadeau ne buñu ñu makki dina len tecc euh, ñom ñëpp di conférence de presse yi euh, doy euh, ñëpp ay ragal ngeen ragal la ñu wax parti démocratique sénégalais le quotidien mom di wax ni nak doxu ñaxtu bi ñu naan ay ajuma Wade moo bi tamit ci mbirum Karim Wade na ci kanamu CREI yi nag alalam ji kii di Bourgi seetal na ko di wax ni Karim abalu ko lu nduroog euh, benn tour ba ci porti kii di Bathie Cissé di porte parole cadre AFP moom it wax ci yéenekaay bi di wax ni ñes dafa juum def kii di Malick Gakou numéro Libération moniteur delusi ci assesseur bi tekki euh, nombre journal bi ne président yi na yene kay bi ne nañu lu audience la am libération ba ci mbirum euh, Mamadou Diop ñu ñuy xamal ne euh, instruction bi dañuy dem ci le soleil mu fësal ganub Sénégal tey nag mu nar a doon njiitu FMI di Christine Lagarde mu yëkkati ay kàddu di wax ni nag bàyyi la woon démb ngir euh, yokk croissance bu Sénégal dana agsi fii rek ngoon ci Ndakaaru ñu dem tàggat eh, yaram wax nag ci Papis Demba Cissé muy wax ni à la eh, yàgg na jubatu woon ak moom ci regroupement Maroc ba léegi jeunesse waxul ak moom te nag mosul gis entraîneur bu génnee nag juróomi joueur ci waa sport ñu jeexale suñu làmb Malick Thiandoum jàngat combat tafatin guy gi ama ak zos ku ci nag mu wax fi mu mënee ak eh, fi mu mënewul lépp mu ngi ci biir yéenekaay bii di suñu làmb loolu di jeexal euh, jotaay bi juróom-ñaari waxtu Mamadou Awa moom it teew su neexee yàlla jox leen yeneen xibaar di leen jaajëfal.